loolu ñu ngi koy dañ koy dañ koy ñaawlu fa fa ñaawlu yam eh, di ci ànd ak suñu directeur général moo ko njëkk a ñaawlu moom nag moo ñu yónni tey ñu ñëw ak eh, délégation bu mag ak membre comme diir yu àndal pour eh, ñëw massawul suñu suñu collègues yi ñu fi fekk indi message bu leen di bu leen di gën a encouragé ah, ndax Euh, lii épreuve la boo xam ni kenn xaaru ko woon mais euh, jëf ji ñaaw na ba ba jéggi dayoo donc euh, donc ñëw bi looloo ko sabab mais également kenn ñëpp xam nañu ni dëkk bi dafa am kilifa muy xalif général bi donc wax nañu ni bu ñu ñëwee nañu dem ba ci moom waxtaan ak moom ci li fi xew ñaan ko it mu jàppale ñu ci. nga xam ni jëf yu mel nii dootu fi amati dinañ ko dinañ waxtaan ak moom it ci importance bi directeur général jox Touba en tant que ville ak euh, euh, jëf yi mu yi mu sabab pour que clients yi fi nekk mën a jëflante ak ñun ci anam yu yu yu neex anam yu yu baax mooy agence yi nga xam ne daf ko multiplier d'ailleurs boo xoolee euh, je pense que Touba mooy seule boo xam ne am na ñetti agence principale te loolu message bi ñuy jox suñu clients yi la ndax fonk mu leen fonk ak euh, euh, bëgg gu ñu bëgg lépp lu ñuy jëfanteek ñun ñu def def ko ci anam yu yu leer ak ci barab yoo xam ni mucc na ayib bu ñu fa ñëwee nañ fa mën a def seen li ñu soxla yépp ci ci efficacité ak ak bànneex. waaw mën na nuru loolu waaye du loolu ndax boo xoolee. agence bi ni ñu ko liggéeyee ak euh, euh, précaution yi ñu jël yëpp pour sécurité bi bi mat gis ngeen ko gis ngeen euh, ñoom pexe yi ñu def pour dugg ci kër gi yombul woon te xam naa ni it jëloon na temps bu mag lool moo lay wan ni rek Senelec mi ngi sàmm alal bi nga xam ni moom lañ ko denk mu koy mu koy mu koy waaye gis nañ ni it communication bi surtout utiliser yeneen kano surtout le canal communautaire dinañ ko am na ko ko junj léegi muy euh, idée bu bu pertinent dinañ ci travailler mais du pour waa population Touba population Sénégal ak suñu client yépp la ndax euh, il faut que ñu xam ni mbir mi seen alal la te ku nekkul client Senelec directement maanaam di fayee sa poche dëkk nga ak koo xam ni ma ngi lay fayal ngay jëfandikoo courant mais euh, li am solo tamit mooy euh, boo nekkul client Senelec tamit voisin wu Senelec la ndax dend nga ak installation wala bureau wala jumtukaayam donc ñun euh, faw dañu war a am relation yu yu rotax yu yu baax ak population yi ak suñu clients yi te loolu dinañ ci volet communication bi nañ ci def comme te lay ba nga xam ni du Touba rek waaye Sénégal gépp message bi dina jàll euh, sénégalais yi xam ni Senelec seen moomeel la ñoom ñoo ko war a sàmm buñ ko sàmmul kenn du ko sàmm. ñu koy xayma te yeggagul ndax euh, def nañ constat huissier ñu war a def yëpp liste yi ñu ngi koy établir xam naa dinañ ko dinañ ko valoriser bu liggéey bi yembee rek incha allah dinañ ci euh, jokko ak yéen xamal leen ko waaye boo xoolee agence bi nu mu toll ak ni ñu ko équipé woon. ak yàqu-yàqu fu mu toll war nañoo ñaaw njort ni euh, yàqu-yàqu bi dina dina am solo trop. Euh, ci pays de droit lañ nekk euh, bi mbir mi amee ci saa si mesure conservatoire yi ñu waroon jël yëpp mooy constat huissier yi may wax ak yooyu yëpp def nañ ko jël nañ ko jébbal ko autorité force de défense yi nga xam ne ñoo war a def enquête yi donc dañ leen di bàyyi ñu def seen liggéey waaye ñun sàkku nañu lépp loo xam ni. war na da ci ci ci daan war nañ ko daan ñi ko def ñu daan leen ko pour que ça serve d'exemple beneen yoon duñ ko defati. ne waaw mënuñu wax ni am nañu ay indice mais am nañu ay ay piste yoo xam ni euh, ñu ngi koy échanger ak ñi nga xam ni ñooy ñooy ñooy euh, caytu loolu mais xam nga lu ñu nekk di caytu kenn mënu caa wax ndax day gàllankoor euh, liggéey bi.